ah. xam nga wax jëpp dans tout ça. dafa mel ni wax ji taajoogul ba tey. c' est un premier ministre du Sénégal ki a accusé le président de la République sortant ak d' autorité autorités du régime précédent ñu manipuler ay chiffres yi muy accusation bu garaaw. et que matul deux semaines wax ji bi ñu ko waxee ba tey. mais est que sénégalais yi ñuy seetaan ak di ñu déglu laaj nañ ndax ba tey nii li Ousmane ko waxoon indi nañ ci benn début de preuve rek ba tey. bi Ousmane Sonko di wax fan la wéeru waxam ji wéeru ko fenn xam nga. nee nañu rapport état wu dëkk bi fi mu ko bàyyi Macky sàll cour de comptes moo koy certifié. ba tey gisaguñu fu ko cour des comptes certifié ñi xam di faral di fekkee nee nañ gisaguñu ko ñoom amul sax ne nañ kon wax ji tegul foon fenn. Mhm. léegi xam nga la mooy le problème. waaw. Euh, diggee nañu diggee diggee jaay Sénégalais ñu jënd ci pax. Mhm. léegi am nañ problème pour que sàcc ndënd yomb na mais foo ko tëggee mooy jafe gars yi dañoo am problème fu ñu tëggee ndënd bi. Mhm. moo tax ñuy jaawale tey Baara Mbay ak lan rëm tamitam yaa asu mbay <laughs> li moo xew dégg nga li moo ci dëkk bi dañuy tëgg tax xam xamatuñ lu tëgg ñoom dañuy jaxase jaawale dañuy jaawale janji ak joor. Mhm. léegi nag léegi nag li ñu doon xaaree xam nga la la entraînement bi. structure suñu bor nii la musa mel c' est en dents de depuis les indépendances Senghor mi ñu baal Ablaye Wade tuuti par mu wàccaat. après mu yéegaat ci Macky Sall dégg nga. waaw foofa na wax na la ko. Uh-huh. keroog Ousmane Sonko mu ngi jël exemple ci Japon moo lay wan ne xamuñ fu ñu jëm xam nga gont xam foofu naan moo ko gën soori wata paayati xamuñ <laughs> exemple Japon léegi léegi léegi dañuy wax bon sens nee nañ def ni Japon. oui Ousmane Sonko mu ne aljuma nañu roy ci Japon. waaw pour ñu bàyyi bor bi alors que le Japon c'est le pays le plus endetté au monde. Le Japon, c'est le pays le plus endetté au monde. Vous voulez dire par là qu'il a parlé ou il a pris en exemple euh, une information qu'il ne maîtrise pas Non, maîtrisez-vous quoi ah bon li mu doon comme premier ministre. non non li mu doon Ousmane Sonko li mu doon lu ko dugal ci politique mu ne anti système loolu maîtriser wu ko amul discours anti système amul projet amul référentiel. amul référence projet am na léegi. Ah, projet am na nag yow. fausse fausse nouvelle il faut ñu kii kii il faut ñu topp la fausse nouvelle. diffusion de fausse nouvelle. ah non il y a eu le référentiel il y a eu la présentation du projet. rassurez-moi. waaw waaw waaw yow de après yow de yow de yow de xamaa Sénégal moom. kon de biis la. yow de yow rek yaa gis projet bi. ah yow rek yaa gis projet bi man gis naa ko de gis naa ko. xam nga ñi daal lu seen projet. bu ah. ñu faloo dig na ndaw yi xëy. Mm. ndaw yi xamuñ fu jëm mu ñëw Colobane xam nga Colobane li ñu fay jaay lan la du matériel deuxième main. waaw boo soxlaa portable deuxième main dem Colobane. boo soxlaa jean deuxième main dem Colobane. waaw loo nit deuxième main rek moo fa amul. Mm-hmm. ma defe ne projet deuxième mai la ñu fa wuti woon mu jàkkaarloo ndaw yi amul lu mu leen wax loolu délégation à l' entrepreneur rapide. ne moom laa leen di jox pour ngeen am xëy. DER pour financer leen deer bi. waaw ban deer la. Ah. DER boo xam ne koo mës a jiite rek xaram nga ko Pape Amadou Sarr jiite na ko bi mu fa jugee. Ah. dafa mel ni li muy wax ci DER mooy deer mënul créer dara. mais suñu bàjjen ay dëmbooj. très bien mer ndiku. <laughs> am na suñu yaay ay dëmbooj. national. waaw nee na ma lay kalaame tey xam ne la ne sommation parce que dama ne DER dafay campagne waay waaye nekk nettali ci làmmiñ boppam la dàqee. ah waaw Chimère jox ñu ko waay jox ma waay. ah oui yéen xale Sénégal déglu leen leen Ousmane Sonko ne loolu rek lay yaakaar pour ngeen am xëy mooy DER ba léegi déglu leen li Aïda Mbodj wax ci DER bi. dama lay bu ma jox jëlee exemple DER dafa dafa ñëw parce que euh, xam nga nit ki boo koy séen bañ ko defee deux mille dix huit ñun amoon nañu préjugé mais teewul boobu ak le ministre Amadou Ba dañ ko ne deux mille dix huit lii ngeen jël naan euh, rapide. man ko ñun yoroon nañ financement ci gouvernement mm. entrepreneuriat rapide mënul rapide léegi da ngeen bëgg fonds politique pour deux mille dix neuf xalaatoon nañ ko mm-hmm. mais teewul ñu ñu ne rek comme ci askan wi la jëm ak fu mu ci jëm rek am mm-hmm. njort bu rafet mm-hmm. mais à la pratique surtout avec ce monsieur là moom moom euh, nëbbu ci dara moom dafa mel ni ku yore parti politique am di def ay pion ah, asma mbokk Sénégal nettal ci làmmiñ borom la daxee li mooy projet bi Aïda Mbodj mi ñu ko dénk sax DER bi ñu jàkkaar entrepreneur du rapide moo ko waxoon mu ne entrepreneur mënta rapide kon donc Aïda Mbodj sax dafa a tekki dañoo war a tekki ndooma tànkam borom ne mu yor amul benn jàpp ne ginnaaw si tey waxuma ko woon avant comme noonu mais dafay campagne parce que Aïda Mbodj mi ko jiite nee fonds politique la dafay campagne kon donc ils n'ont rien prévu pour cette jeunesse moo tax xale yi di dellu ci gaal bi léegi nag jekku lay rafet jëfin moo ko gën comme amuñu pexe il faut ñu fu ñu wéeru di andi endettement di indi ay lay chaque jour ñu andi lay bu bees man xajuma si gàcce ci yéen nag yéen da ngeen mën a xeex trop man xajuma waa tamit tamit da ngeen fàttali suñu yaay la xanaa yéen tamit ay ragal newuñu fi de ah, dëgg tamit dinañ def suñu liggéey en toute responsabilité mais ay intidima eh, intimidation intimidation plutôt dégg nga ak di xoqatal ñit ñeeg di kii fii ragal amu fi saway lu ñu war nag dinañ ko def dinañ informer juste et vrai joxe suñuy commentaire mais quant à foog ne ne sa waay mun nga noppiloo nit ñi wala di leen jéem a dox seen may nag loolu loolu du fi dox nit ñi dinañ wax seen xalaat ci réew mi et puis maman Aïda Mbodj c'est une grande dame c'est une lignère voilà ba muy def politique boobu xam naa ne man juddooguma vraiment man dama ko respecté dama koo naw dama koo respecté dama koo naw super linguère sax lanu la la la laa koy la laa koy woowee super linguère parce qu'elle a été intronisée même moo ma ne si arène politique mhm. wax na fi lu ne mhm. waaye si arène politique it dégg na fi lu ne mhm. kon yaakaar naa ne du wax ji moo ko war a mën a yëngal ba mu jaaral ko mu yóbbu sommation super linguère na super linguère est-ce que c'est elle-même qui a pris l'initiative man de wax dëgg yàlla ba ma baale li ma njort goo ma ne ay Aïda Mbodj am na xolu. waaw yéen parce que man grande dame la. waaw ma ko xamee moom ci discours am ci élégance am. républicaine surtout. ah vraiment man wax dëgg yàlla koo xam ne rafet mënoon naa ko def côté récépissance la mais xamulu ñoom dañoo tëju yor xam ne comme Thierno xam nga jéem nañ ma tuumaal ba sonn ne Macky Sall laa bu ma leen waxee dëgg ñëpp ñu gis Sénégal may xeex troisième mandat ba dugg boîte vocale Macky Sall wàcc na képp ku ñu xamal dara génn nañ ko mënuñu ma génneel compte Wave Orange Money lu doon tarfatal ay ni lu jógee ci yaa may dégg est-ce que. ah réew mi nag lii parce que max mais max yàllaa koy rolle yow. max buy tabax yàlla moo ko rolle kenn xamul fu muy wutee ndoxam ñun yàlla lañu yaakaar. Mhm. léegi comme ñu jaar foofu noonu xam nga dañuy am seen liste am na ñoo xam ne il faut ñu xooqatal leen ngay setu njaajaan njaay xoox du la dàq. Mhm. loolu tam daf leen di jaaxal ci man. wallaay parce que xam nañ ne mënuñ ma napp. Mhm. fii laay jaar nii 6 heures yar sama bal di tël ba géej. aller retour jaar ci timis bi ñibbisi xamuñ ne kii doog fii xoox ko. il faut ñu sàkk moo tax ma defe sama yaay li nga dugg nii ay rambaaj ay seytaane ñoo la ci dugal moytu leen baaxuñu ko olof Ndiaye nee ku yàgg si njaw di njaw moytul ñii yaa ngi bëgg a yàgg te boo yàggee ak ñoom ñu wàllal seen jukko xamuñ lu baax duñ ko wax duñ ko def. en tout euh, euh, de l'UCG ñoom ñoo ñuy teewlu chaque matin ah? waa UCG surtout jigéen UCG am na fa bu fa ne. waaw ñoom Robert. Euh, sama rakk la moo nekk seen communication. ma ko nuyu bu baax. comme te réewum jub jubal jubbanti la ñu nekk. Hmm. ñooñu ko wax. pour ñu imposer leen jubbanti gi. Euh, Chimère da nga may may maa tay gi ba pare man temps yi mooy sama bàkk. aywa maa gi. on le disait tout le temps Abbas. la peur est de leur côté. diw lekk na xaw ma ñaata milliards. du waxi nit. bu amee moo tay. merci. vraiment euh, bu subaa ma xoolaat keneen koo waxoon ma jubbantiwaat comme ñun dañuy jubbanti rek.